ba it bu den ko xam da nga nekk ci xat-xat nga genti di jang ayatul kursi loolu it gént la go xamne dana wane ne aji genti ji li bala yag yalla man nay defal xat-xat yi bi nek wala jafé jafé yi mu nek day tektel man na cee genti inshallah rabbi ba tey tektel bu am solo na ci ayatul kursi ko xamne da danga am jigen mu tollu ci walu am dom nga bëgg muccu ci jamm ta kenn du ko opérer soo ko mënee incha allahu rabi bu nee ba nekk cetal weeram waxal utal ndox mu sell boo ko mënee ut nag ndox mu zam-zam mooy li gën boo ko wutee nga jàng ci ñeent fukk ayatul kursi yi nga jox ko mi naan tey raay ci biir bi incha allahu rabbi yàlla sunu borom dana dogal dina am doom ci jàmm te mënees na koy bañ a opérer incha allahu rabbi kon loolu tegtal la bu am solo eh, ba tey it koo xam ne am nga doom mu juddu. nga bëgg yàlla suñu borom muccal ko ci saytaane fexeel ci daar daar bu juddoo noddal ci noppum ndeyjoor bi liqaam ci noppu càmmooñ bi nga wut ndox jàng ci ayatul kursi yi ngi toqal ko ci gémmiñu xale boobu loolu tegtal la bu am solo boo xam ne soo ko defee kooku yàlla mën na koo muccal ci seytaane ak lépp loo xam ne day gàllankoor doomu aadama yi mbiru seytaane bokk na ci jafe-jafe yi tegtale gént di jang ayatul kursi mëno ko jang mëno tambali mëno yeggale lol gënt la gi wone né koku shaytané mën nako bu baax shaytané koy yakal bu baax shaytané ngoy galankor bu baax baax kon ala kulli halin niñ koy waxé am nañ fa ay garab yu baax mo xam émorite wala ndox siti traitement bi inshallah rabbi bu ci topat moy la aju ci walu katan am nañ fa ay garab yu baax baax benen bi ci topat moy ko xamne da nga am walu jafé jafé ci walu ubu wala cet galankor amna fay ciangat yu bax budé jigen ci bëgg borom kër insha allah fay ciangat wala gor gor da nga bëgg soxna ko labar bu yagge ngeen taxali ko yépp amna fay ciangat yu baax bax benen bi ci topat moy ko xamné dafa am réeroo ak soxna wala am réeroo ak sa borom kër bëgg ngeen jibo wat lolit amnañ fi ay ñaan yu ni yo inshallah rabbi kun ko liggéeyal yalla mën na dogal dal sa digganteeg sa borom kër galankor bi nga xam mo ci amon yalla mën na teggi ba kon yeb ay tektal yu am solo eh, kon li yenn gént la yo xamne da aju ci ayatul kursi mu nek gént yo xamne lu ci ëpp day tektal yokute day tektal karange day tektal muccu kon ayatul kursi yi la ci ay alquran yi aya bu am solo ku ko man di jang na waxtu julli bu yegal ni lo so bu yalla sun borom subhanahu wa taala man ko sotal moy ayatul kursi gannaaw waxtu julli bu nekk ka jang ko ñetti yoon loolu it wërsëg la yokkute la ubbeeku la kon gént di jàngat ayatul kursi yi lu ci ëpp yiw lay doon kaaraange ak ubbeeku ak xat-xat yoo xam ne bu ci nit ki nekkoon balaa yàgg sun borom subhaanahu wa taala mën na koo génne ci xat-xat yooyu wala jafe-jafe yoo xam ne mu ngi nekkoon di ko jànkonte kon mbokk yi lu waaye man nay góor a lu baax ci jàng ayatul kursi yi nay gën a lu baax di gën a was ku bëgg nag mucc ci pexey seytaan tamit booy tëdd del jàng ayatul kursi ñet yon falakh ñet yon nas ñet yon qul wallahu ahad ñet yon loolu ku kay faral di jang ci tedday loolu dana bok ci mën nga muccu ci pexe yo xam ne shaytané ak lepp lo xam dalay galan quoi kon ñu ngi ñaan suñu borom yalla yalla defal ñu jamm defal ko mbollem ñi nga xam dañuy bayyi xel kàddu gi fu mën ka nek ci aduna bi yépp di ñaan yalla yalla defal ñu wërsëgu yaat ak ko ak guddu fan ak fajuk aajo àddina ak alakhirah in uridu illa al islaha mastata'tum وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإلى أمير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله على كل حال